balay aksi ci man ndax bu aksé tamit duma ko xol yalla dogal xeyna na nako gis mu aksi, ba mu lama la ma def moy supprimer ko alhamdullilah rabbil alamin su ngeen gisé nak may def vidéo bi ci loola la jëm di tranquilliser di dalal xelu ñi nga xamni ñi samay bokk lañu samay xarit lañu samay soppe lañu samay am di jamm lañu sama njabot lañu ngir bu ñu gisee xeeti vidéo yooyu nga xam ni nag fawu mu am ci internet bi ñu bañ ko seetaan suñu bëggee lu leen noppal ndax seen xol yi bañ a am lu cay ñu guñu gi wala buñ ko seetaanee ñu muñ ñu muñ ndax nag am na lool jarul xool daaw wala daaw jéeg fa am ku fi wax ay wax ma tontu ca wax jooja moom nee naay waxi boppama xam nga genre mercenaire yooyu xaj buy bow nga wut ko rek teg ci sa balkon ku ko romb ne la mbaw mbaw genre yooyu la ba ñu ma waxee ne ma tontu na la la ma ñaan suñu borom mooy yàlla yàlla na nga mën dimbali ba ma bañ a seetaan vidéo ba alhamdulilah loolu laa ci am lu ma ca xamaat ginnaaw bi nit ñee ma ko wax damay bañ moom moomu mu am satisfaction ci li mu am li mu bëgg moom lu mënta weer xew li mënta xew moom mi ngi gis samay vidéo kon xoolam a ngi dagg te moom mënu la am ma xool ba ba sama xol di ca dagg li ngeen dégg bés bu ne nag ma koy wax ba ma mbokk mi jote yónnee daaw di ma laaj ci mbiram la ma tontu mooy li ngeen dégg ma koy wax bés bu nekk réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk réew mi ñu bokk su dee la ñuy wax réew mi la concerné duma ko régler problème mu religion maanaam duma ko indee diine su dee social la social lañ koy régler bu dee diine la ñu indi ci diine moom moomu nag ñoo bokk réew mi foofu laa yem ak moom kon li nga xam ni moo jëm ci wàllu diine ma cay wax su cay tontu du am ma tontuwaat ko walla ma ko cay may fulla ak fayda ak maanaa ndax man diine ji ma bokk daal moom dafa am julli am woor am joxe zakat am dem màkka keneen ku am jeneen joo xam ne ji loolu bokk ca yaa ko moom sama yoon newu ca waaye nag sequñu mbiru diine kon lu ñuy wax ci diine soo ma ca tontoo defoo li la war manit bu ma ca delloo di la joxlante ay kàddu defuma la ma war ndax man diine ji ma am man diine ji ma bokk yàlla joxoon ko muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ko buniyal islaamu ala xamsin lislaam ci juróomi ponk lañ ko def juróom yépp maa ngi cay ñett ñetti képp ku ci bàyyi benn bokkatuma yow diine bokkuñu même valeur kooku nga xam ni mooy tontu nee na ndax man bañ ruslaa di jullit boo xam ne bii dafa am fu ma lislaam yam loo ci wax ak jëf di gorsu am lu may seet am lu may sédd li wolof yi di wax naan lu xaj màcc matt matt matt war faa bàyyi ceen ga ca baatam seetaan ngeen ko ci internet bii doomi baayam la saaga ndey ne ko sa ndey moo tax gune yi dama leen koy wax bu mu leer ndax ngeen xam kii may waxal kana moo tax gune njaareem yi xam nu ñuy defee nangam taan kii wax ak man moo wax loolu te doomi baayam la ko wax kooku ne daf may tontu déggoon ngeen fi atam daloon na ci joxoon na Cheikh Ahmadou Rafahi wàllam ci naru yi Cheikh Ahmadou Rafahi doomu sëñ Fàllu di imaam bu ñépp bëgg te sopp ko joxoon na ko wàllam ci nag wa te man suma joge diko tontu nak ci limuy wax te lama wax man leer nañ ci ñimu wara leer ci ñoom ñoña jël ko diko jëriño ak diko jëfëndiko mom mu wax ci yeneen yi wax ma jog diko tontu lumay wax te suma waxon ci ko xamni ki soxlawul argument bu joge ci alquran soxlawul argument bu joge ci hadith soxlawul xel mu rafet soxlawul yene ju bax man kooku suma ma diko tontu yen ñi yen may jëk jëk bi deug la nak kaddu gu ñaaw kuko ko ci sa mbokk wala sa njaboot wala sa xarit wala sa soppe dana la metti lolu ku xeb saga do gor ku xeb saga do nit ku bax parce que da dul genn ci nit gémmiñu nit ku normal waye ngeen def ko ni jëg bo xamni bi dafa jëg moy caravane ay giléem yu jiitle wala nag yu jiite wala ngeen di jaar ci biirub dëkk xaj ya miinuñu leen ñu leen di baw day tax ngeen waññeeku day tax ngeen su ngeen maree wàcc ca dëkk ba naan day tax su ngeen amee mbokk mu dëkk ca dëkk ba ngeen ngeen ngeen ngeen bañ koo nuyu déedéet jëgg ba kay day continuer wu yoonam xaj ya di baw ba gisatuñu leen ñu noppi loolu moom la tubaab di wax la les chiens aboient la caravane passe genre nit yu mel noonu dañoo waroon ñoom di saaga seen ndey ak seen baay loolu la waroon saa ñu yeewoo suba bu ñu julli bu ñu def leneen nañu saaga seen ndey ak seen baay ndax ki la yar ba nga mel melokaan boo ñemee génnee saaga di ko jëmale doomu aadama di ko xas di ko ŋàññi ci loo xam ne amoo ci benn raison bu valable yow da ngaa waroon di saa yoo xëyee su sa baay dee sax ci bàmmeelam nga waroon a taxaw saaga ko bu sa ndey dee nga dem ca bàmmeelam saaga ko noonu nga waroon a def moo gën di saaga nit ñi ñu mel noonu ndeysaan dañu am problème dañu am problème psychologique yoo xam ne yi ndeysaan dañuy gis fu ñu ko bëgg a wetti ko dañuy bëgg fu ñu ko serloo dañuy bëgg ku ñu burusu ndax li ci seen xol yi di génn loolu nag il faut pas que ñu leen di may occasion déedéet bii laay mujje wax ci wax jooju li ma ci jublu it mooy dëfal samay bokk ak samay xarit ngir ku ko ci gis bañ ko xool ku ko xool muñal muñal am na koo xam ni kii li wolof di wax yedd yërëm ko gën am na nu nit di mel jarul nga koy topp kooku aki moroomam nous ne boxons dans la même catégorie bokkuñu fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu màgge bokkuñu nu ñu yaroo bokkuñu niveau intellectuel bokkuñu ngor bokkuñu jom bokkuñu ak ragal yàlla kon ñooñu su fekkee ne damay wàccee sama bopp ñuy wax may wëlbatiku di ca waxaat déedéet kon danaa mere sama bopp lool du ñàkk yéen it ngeen mere ma lu jëm nag ci wàllu violence dégg naa ci ñi wax nee ñu am na ci ay kàddu yu muy wax di sule ay déedéet man ay rek laa bëgg nag bu jotee violence moom su jotee moom su jotee moom ku yéex a jóg tooñ nga ma violence dong bu ci desee moom ku yéex a jóg tooñ nga ma man sama yaram daa yàgg xasan lool plus de quarante ans yoo xam ni laalewu ma kon sama yaram a ngi xasan kon ku ma gis nga bëgg violence moom te jëme ma ko moom xamal ne yow boo yéexee danga may tooñ may tooñ maa ngi koy sàkku ci bokk yi daal ku ko am ngir yàlla lu waay wax ci man ak ku mu mën bul ma ko yónnee bul ma ko xamal loolu nag dafa jaadu mangi ngi wax am na ñoo xam ni faw ñu tontu ma tontu ye danañu wuute kon nag loola amaluma importance li am importance daal mooy li may wax gëm naa ko bëgg naa ko ci laa nekk ku ko weddi am nga ci droit ndax weddi woon suñu boroom weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam weddi ñeneen ñu ma gën foofu ëpp ma daraja kon faw ma am ñu ma weddi waaye ñu mel noon daal dimbali leen ma ngir yàlla kuy wax seeni wax waxi ko feneen waaye bul ma ko wax ndax ñooñu aw ma soxla ci ñoom asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.